Asi taxawal Asi taxawal bu ñëw la. Yar Thiam dépêche-toi. mi ngi ci man. waaw. ah ci madame Ndiaye kii suñu séeri la demee kii moom moom mooy deuxième jëkk bi. wax nañ leen fi ngeen jógee sañ sa wax nañ leen. c'est bon ñëw leen. Thank you.

Baye Ndiaye mi la jël Alaaji Aale Ndiaye baayam ko Oumou Khayri Ndiaye da jobal yaayam waxal ca kaw bari maamam waxal tamit ci kambu reen ani jofé mu mat jéegi dañu Afi ñu ne ko Oumou Khayri Ndiaye yaayu aram ak maam di te na añ na reer am na ndékki am a dem duggi eh mu nga àjjanay nelaw xuja jooba yaaye jëmmal maamam ak Cheikh Anta mi ci Cambérène Baye mi jël teg la sa place ni la yow takkuma kenn bàyyi mi la jël kooku ee eh, dama ne ku nopp nga nangu ku takk da ngay sëy yabu ko jigéen du ko tontoo jéggu la yónni sa jëkkër la teg ci place la fat bàyyi mi fat doo fanaan biti jeeg baa ngi ee eh, xoolal sëy ci ba am fa ndam sëy ba ligg fa wiw ñu may la fa njëkke tojoo kër ga rayante woo fa xuloo woo fa ee eh, jeeg bi na jeeg bi siiw nuur raay yegg na Saly jéggi ñëw Tabe jéggi jeex na ba sonn foru doom yow da ngaa ñëw foru jéggi baa ñu kanam ku sama xarit kon ay sa rasul mi bu ne kan nga taamu mu ne woo leen njole taal mooy sama yaay yal na nga yeggaleeg sa sago ba ci kanam à suivre waaw à suivre kaay kaay may bañ nga ñàkk taxawal tuuti gis nga man ay waa ji ay waa ji jël gi dimbali leen ma ngir yàlla sànq ba léegi maa ngi la koy bàyyi pour wax Aïcha, félicitations. Aïcha. Aïcha sama xarit bi félicitation billahi danga kaa mérito waaye sànq li la nit ñi témoyel jar na liggéey ba dee Aïcha li la nit ñi témoyel rafet na wàcc nga kaame ñaari yoon say bàjjan gërëm nañ la say yaay gërëm na la say mag gërëm nañ la kon ñu lay ñaaneel yàlla sey bi yàlla mu nekk si gàcce nga laama ko iliman kon mati iliman laam baba rakk jee góor Mati Njaay Mati Njaay ñëw na góor ay feere suur ar bu rëbb benn jéeme ku la may nga jël te ku nuru dina sey ba nga toogee ba tey jogoo la samba ak borom bu la ma jigéen ba suna trop tappa kay jeeri jirbem samba yi bàyyi bukari bi ga sangu leen la grande dame ko iriman laam ay fe xam nga ki la may jëkke bu la ko joxee di nga sey fukkat ak juróom ñett jël te mu toogee ba tey jógul kenn ko ci dara mati Ilimaan la samba ak burum bu ne ma jigéen baasin jolof jolof bi kon ay sa resour plifooru ay sa kon afis njaay doo jël ndaare ndaare doo jaamu jeeg doo jël ndaare waaw waaw ndaare sa démb yaa ngi nii ñoom nga àndal yaa bëri kóllëre waaw te bëri valeur man lu baax pour ay sa ressource sama rakk jee ku naa jaay dëggal li baax doo doon ku jël ndaare matili maan matili maan ak bu dee benn lañ yemee la samba kurum jaay bu dama jigéen baasin jolof jolof bi dooru ba Mamour Njaay bokk ndey asisi mi ci ngor geeg jom jeeg taar bi kor bay jaay ay sa rasuur sama rakk ji yaa ko bëri valeur kor afis jaay kor mati njaay gàcce nga laama mati boo génnee gën rem njaay ba ko ma kilifa yi buuri la sama bur bu na ma jigéen baa suñ grande dame bi ñëw na la diva bu wax ji bëree du moom bu jëfëree moom la mati liman laam jolof jolof bi ñëw na galar ba maam njaay jolof la sama bu njaay kon ay kàcc galaama sama rakk ji mati ñëw na mati liman laam gor fi ñëw na albiri bi repen na jeeme bu ne ma jigéen baafin rakk la jàpp ak jeeri jëfal sa tay mbaa

maam Aïssa mi ngi ngi nuyu ay tantam. ma ne ko Aïssa na ñu ngi laati Ndiaye Mbisaan. Alaaji Abdou la ñuy woowee sa kooku Aliou baayam Lat Pendaay baayam ngoone maam bu tuddaan la jibu jaw pend ngoone Njaay Misar boo génnee gën yaayam a ngi nii selbe mi ci luulu borom baay ak cel cel bi ñuy jooy lépp li mu ci malam son na jekk na borom baay bi ñuy jooy to noppeeguñu sa ndamb mi ci geloor larsel ba mi ci luulu demba neela mi ci taseet jàpp li mi des ci mbalam soot ak lat juma mi ci jaayaal ak yungul mi ci tato yi ci ndakaaru jekk na ngoone maa mu taxaw barke yeneen ci biir ma ne ko jekk na borom yaayu ni si toog awa ji da leen nuyu macha allah macha allah macha allah Aïssa ñu non tàngul tàngul Aïssa Aïssa sa bàjjeni séeréer nan la fi doy Aïssa man maa lay présenté ñii kii sama nijaay la Aïcha. bàyyi ko mu pare. non bàyyi ko mu pare. mooy roob attaque bi. waaw xam naa li may def. xam naa li may def. Aïcha. waaw non ci wetam ngay toog. ma dem nuyoo. na nga dem nuyoo ñëwal. bàyyil bañ toog nga dem nuyu leen. bàyyil bañ toog ba pare nga dem nuyu leen. Aïcha kii sama nijaay la.